Sénégal njaay yow neex neex Sénégal sama koñ yow nag da ngay ñàkk ñàkk fajlu yow fii tabaski laa lay yóbbu ñi ma jaay la wala ma ree la ngay dof lu yow yow toogal foofu rek sama xaalis bi jeex na nag bu yaboo nga kii lii moo la desee Sénégal njaay woo oh. tey moom doo naan moom doo naan ndax jeex na ndox moom si boppam moo jeex ndax sapeur yi fayatuñu kii SDE mooy loolu yaa xam ci yàlla suñu borom ay waay waay amee ndox voilà nga jàngale sa yaay nee na man def lan ndox wa man may wuti ndox pour sama xar muy naan ay ci xaaral bu dee man maay sapeur wala man maay DSE dina leer Sénégal yi jaay xaaral man xam naa lu may doyee ndox bu bon laay noor jox ko mu kii xaaral ndox ndox ndox xaaral rek xaaral bu dee lii lii jàmm la xaaral ndox bii nii lii lii lii lii lii lii lii lii ndox la lii lii lii lii nit mun na ko mun na ko naan lii ah lii dafa naqari waay lii kenn mënu ko kenn may wóorloo ndox rek maa maa maa maa ngi si xar ah di jaay ba léegi nii waay lii dafa metti waay lii comme kon Sénégal jaay amuñu ndox wee boo na DSE wala sapeur yi wala kii nañ uti ndox bii ñun bii lañ naanee